am jóge ban réew jóge Espagne Valencia Xatiba Ingera Bulbayte Ceeja Anna Ingera macha allah waaw parce que lu yàgg dëgg la parce que kii dañoo yàgg maa man li mën nar a wax sax xajul ci émission xëy na bu ñëwee nii ci làmb ji yow dañ lay bëggee parce que xol moo rafet parce que bu dul dara ma yàgg dégg ngay wax Samba Kara Samba Kara sama rakk la bokk ci man macha allah am fu ma féete kii dañoo yàgg après naa woon benn photo boo xam ni deux mille vingt deux mille un la woon ba deux mille vingt et un démb ci sagal bi macha allah ma si def montage wan ko ko muy mbégte kase te loolu lu yàgg rek dëgg la maa magam la woon alamdaa après ma pousse alamda indi ko teg ko xam ne kii mooy mbër mi macha allah. waaw tey en tant que sénégalais bu nekk diaspora di fa dund nga ñëw Sénégal tey yow bëgg ba làmb ji yàqu tey loo looy wax. rafetluwuma ko. parce que mbër yi li ma yàgg a wax rek ikirwaal ba ma fa nekk blouson buñ la ko joxee nga sol ko joxuñu la ko rek pour ngay tiitaru wala dara maanaam Papa Sow action bi ni ñu ko gisee ki njëkk ñëw dañ ko freiné moom mu jéngu jël affaire bi daw ñëw. donc am na ay ponkal yoo xam ne dara ñoom ñoo ko waroon jiitu ba làmb ji bañ a yàqu parce que làmb ñu ngi ko doon xaar ñaari at wala ëpp na ko mais vraiment làmb tey ak ak stade bi ni mu demee nii affaire yi jege na manqué na loo xamante ni daal ñàkk yar mu ngi ci. ñàkk yar mi ngi ci bu baax a baax a baax ndax fii réewum tubaab bi nañ ne mais tey ji bu doon réewum tubaab bi làmb ji na egg xeex du am dara du am te ki def affaire bi boobaa nañ ko jàpp nañ ko yóbbu bu soobee yàlla. am na solo Dias. Euh, félicitations. Babacar merci merci. Euh, yow balaa mañ ci sa combat wala fi nga mujjee lu mel nii daal na la fi bi ngay bëreeg ñàq kon lii mooy deuxième fois muy am fii combat bu yeggul ndax violence violence bi fu muy jóge du jóge ci mbër mi ngay bëreel mais xëy na ay àndandoo lay jóge wala ay nangam sangam ba lii am ni tey noo gisee lii. waaw du ñu def loolu sant yàlla julli si yonent bi rek di sant suñu ñaar waaju sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kabaroo borom daaw salaama gaan mu wax dëgg yàlla li fi am tey moom dañ koy naqarlu jaar naa ci ba mu amee ba mu dalee sama kaw wax dëgg yàlla am na ñu wax dëgg yàlla combat boo xam ne yàgg na presque ñaari at ba ñuy dugg wax ci ñetti at mu ñëw demee nii waroon na xam ma waroon na jeex ci jàmm daal mais nag jàmm day bëgg mais yàlla day dogal na nii la ko suñu borom bëggee dañ ciy sant yàlla rek ñaari mbëri kenn ku gaañu yàlla may ko tan ba ñu mën a waat ci kàttanu yàlla. mais tey lii est-ce que est-ce lii rafetal na deru làmb. non mosul dafa euh, rafetal deru làmb kii lii moom ku ko rafetlu rek da ngaa naar fiq wax dëgg yàlla amul kenn kuy taxaw fii ne lii lii def nii rafet na mais nag seetaan bu ñëwee ñëw na seetaan fu mu xaju lay dugg wax dëgg yàlla bëri bi ñu préparé bëri moo leen indi woon boo xoolee ni ñu tuusee boo xoolee ni ñu ànd ak seen seen i seen i accompagnateur ba ñëw ci làmb ji moo leen indi mais seetaan fu mu xaju rek lay dugg sant yàlla te xam ne ni la ko yàlla bëggee woon noonu la waroon demee mu demee nii daal waaw eh, mu mel ni fan yi passé coow am na fi bi nga daanee Zos. Zos ne na daa am loo ko jam. yow nga ne jamuma ko dara ma ko door uppercut. yow da ngaa yoroon bant booy jame wala ay puso wala rab wala lan. <laughs> non loolu prétexte la rek mbër mu daanu moom il faut ma xam am ay ay ay ay ay ay ay yëf-yëfaan mais moom sama grand la maa ngi koy jaar bu baax di ko ñaanal yàlla may ko wér. loolu la gis xam nga garaawul man moom xam nga ne man ragalewu ma Zos noo xamante ne damay bëri di yor ay béy ak ay yeneen. xëy na dégg naa di waalo lañ daan wax Lac de Guiers waaye léegi penseur de Guiers waaye Alioune Seye 2 nangu nga ko de. non lu dagg lu ne morom ma lay fekk kii ñoo dalandoo baal jàngandoo lépp kon su ma waxee penseur jaadu na ndax maa ngi moom ñoo nekk suba ngoon guddeeg bëccëg lépp lu nekk ci moom ci man la nekk li ne ci man nekk ci moom kon xam nga su ma waxee penseur jaadu na. léegi foo jëm. waa ci gars yi rek. caat day dëkkal na la sampal na la ndën caat bu booy baam non du maag caat tey grand nii tey sama làmbul woon wax dëgg yàlla loolu ma gën a yëkkati wax dëgg yàlla moo ma indi mais nag sant yàlla rek xëy na nii la ko suñu borom bëggee. kenn ku ku ñëw ku ñëw baax na. waaw. Papy defe naa ne fii bëre nga fi combat bu mag yaag booy Niang ah su ma jumul yaay VIP bu fi njëkk a bëre defe naa ne. tey lii am fi muy ñaari yoon mu fi am sa kii nga àndal muy Alioune Seye lii dal na ko fi dal na fi tey Papa Sow yow ngay VIP wu lamb bokk ci mbër yu mag yi. arène nationale ak yi fi faral di am nii est lii. bu continuer fan la ñu jëm ak làmb est-ce que mënta dem sax buñ tëj arène bi wala làmb ci boppam ñoo ndil ko yeneen jafe-jafe ndax ñi mam làmb bëri na trop te daa mel ni waa mbam ma ñu ngi ko bëgg wuyoo waaw sëñ Babacar ñu ngi lay ziar baax a baax di ziar amateur yëpp ah di ziar supporters yi yëpp tey suñ coobere ñun bu ñu sañoon lii du demee nii ndax dal na fi Alioune Seye 2 ñun naqarlu ko ñun ñëpp yaa ngi dégg mu ñëwaat amaan ci contre Papa Sow xam nga la ñun ñëpp ñu naqaru ko tamit mais tamit ciy sant yàlla parce que lamb moom moo tëddee nii milieu moo nekk milieu bu yéeme yaa ngi dégg da ngay moom sa bës nga ñëw lu ndaw yaaxu ko ñuy encouragé Papa Sow di ko wax di ko maslu di ko wax na kat euh, na faju ci jàmm wér ci jàmm ñu fexe jàppaat combat parce que lamb ji lamb ju neex la il faut ñu xam foofu victoire ba victoire di féete. maanaam li ma gis ne ma dañ kumpa nag. il faut ma xam fan la victoire bi féete. yaa ngi dégg di sant ñi nga xamante tey mooy ki nga xamante ne mooy sama lépp mi Mambo Diaw. tey moom bés bi bésam bësëm nii rek mën a mel. Mame Boye Diao bésam nii rek la mën a mel. mais bu yeggoon dina neex lool. non bu yeggoon dafay toj mais cat dafa cat dafa garaaw quoi mais ni ñi sant yàlla baax a baax a baax di ñaanal Mame Boye yàlla defal ko jàmm yàlla may ko wér ak gudd fan yàlla yokk président yow laay waxal suñu papa nga suñu kilifa nga suñu lépp nga gesul Mame Boye Diao ndax ko gor la ko dëggu la. gars yi dañu lay sampal ndën bëri na. Fara sampal na leen dën. <laughs> Forza sampal na leen dën. waaw mais c'est normal ah c'est normal lamb ma moo tëddee noonu yaa ngi dégg parce que ku nekk da ngay ñaan ci làmb ñu lay tëkku ndax bu ñu tëkkuwul rek bu yóbboo nga xoolaat sa bopp parce que c'est normal ñoom ñëpp suñuy suñuy suñuy lañ yaa ngi dégg ku nekk bëgg na bëreeg Lac de Guiers moo gën koo xam da ngay nekk ci làmb ji doo bëreeg Lac de Guiers 2 comme ñoom seen choix la yàlla baax na ñun ñun ndaw war naa mën a neex de wala buñ la lekk ko ay la nañ bàyyi ba yegg ci rek yeggu ci xam nga tëkku na trop ah. waaye jëfanteeg moom loolu beneen affaire la waaw mais nag dañ dawal ba ci kanam amul fa laay mujjee ak ki nga xamante ne tey mooy sama lépp ah. man munu ma wax wax wax wax te tudduma ñaan yi muy Aline Seyde ak Grand Lirou ak Ikri Waalo parce que ñoom dañoo nekk ñi nga xamante ne tey euh, euh, su ma nee Aline Seyde nee naa leen su ma nee di répété di répété waat bu boobaa damay doon naa féq répété bu bari baaxul gis nga jëmm ji barki Seydina Mohamed lu nekk ci man yëpp moom moo ko def li wax nii ah wallahi azim barki axor est que xam nga ne su ma la wax moo jàngal bëri doo ma barke a parce que ku mën a bëri la dégg naa. bëreegul sax. te dégg yi loxo yi la yor rek. jamono gi kay xeeram la yor di xaañaata rek lu leer la ala wax mais bëre non bëre macha allah yàlla bu ko cat dugg. waaw di ko encouragé tamit di ko wax na gën a góorgóorlu. yaa ngi dégg na gën a góorgóorlu. wax daal sas na ko de. Ikiri Waalo sas na ko. man sas naa ko ndax doomu ndayam laa yal na ko yàlla defal jàmm yalla na ko yàlla yokk Ikiri Waalo ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñu ñëpp. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant grand liiru képp ku am combat biir géej waaye yan la yàlla may ndam. le moom di ngeen fi wàcc ak Balla Gaye 2 Bombardier. incha allah bu neexee yàlla bu yàlla jëlu suñu bakkan bi ñu ngi ñaan yàlla Balla Gaye yàlla yàlla may ko ndam bu rëy rëy rëy ci barke Seydina Muhammad. am na solo naa neex yàqu lu neex yàqu na. waaye lu boxoon. li lu neex a yàqu. ci lu boxoon non damaa toog ci kaw. gis tarkindaa bi Baye Fall bi la mu tuus ak la mu fecc ak la mu dowali ah ma ne laa ma jëlee ma daaj di tuut Papa Sow tuus dem Faas dellu parcelle ah tuus daal di dowali ma ne laa ma ji du yomb te xam nga lan moo tax laa ma yomb papa yow kii euh, papa premier combat bi mu formé écurie ma léegi kon xam nga ni bëggoon na combat bi te na fu mu tegoon combat bi waaye tarkindaa bi <laughs> bi Baye Fall ba la tuus ak la mu lamb ju neex a yàq waaye cat la xoolal stade bi mel tey rek cat la. waaw man de cat bi daa fekk dell. lii daf may fàttali. waaw eh, daan Sadji ga Balla Gaye 2. oh ca Sadam Thié nga xam ne Sadam Thié doon muslu ci Balla Gaye 2. sama rakk yàlla na ko yàlla defal jàmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm le premier janvier yàlla may nu ñoom seddu gu géej way ci kaw ci kanam caaroy ca ginnaaw faas sa ginnaaw parcelle sa ginnaaw. Siteu ci ginnaaw génne way ci kaw ci kanam Balla Gaye de yàlla ko yàlla suturaal. le premier di ngeen feesal bi. waay yow Balla Gaye de stade si moom Balla mën naa fe. yow dimbali ma nga am Balla Gaye est ce que mën naa. déet dama waaw dama lay laaj. stade amitié yi suñu mus si Balla Gaye de waxuma la sàkkantuma ak arène nationale. yàlla nekk biir géejawaay boole. voilà na lu yàlla defal jàmm bu dimbali ma Pologne. borom Bombardier Pologne la tudd tudd Bombardier Pologne Pologne xam nga la booy borom Pologne. doon borom Sénégal. <laughs> doon Pologne. booba wala ku. Pologne xew Pologne xeex. loolu xeex dañ doon xeex rek sportif. waaw doon xeex dañ ko doon xel la. mais yow mi est-ce que yow loolu mosu laa dal mosu laa daan. man mii man mii ah, déedéet mosuñu maa door ma daan. Ndiaye lu mu dimbali ma kooku nga xam dafa maa yóbbu fa la liggéey ma moo yàq du dara. taxaw de bu ko jëw de. waaye man jëntuwuma ko faalewu ma. xeex de rus naa doomam ji taxaw. a xeex de su ma rusuloon doon ba tey door naa ko. daa mën xeex de wuyu ma Babacar. yàlla na nu yàlla dafa jàmm Sénégal yàlla na fi jaamu sax élection yi ñu jëm yàlla na ci dugg bisimilahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina sa yoon nekku ci ko ne ñëw kumpa la sa yoonam ne xoolal dama la bu ma ko waxati ah sa yoon nekku xam ko dama caaro nga dëkk dama caaro gi nga dëkk nga toog foofu nga seere say rak <laughs> ah Balla Gaye la waaye day wax suuf di wax ci kaw danga ko bëgg a ji ñëpp jëw non kii day wax ci suuf day wax ci kaw waaw day wax ci suuf ah, waaw dimbali ma lu soyoon yoo xam jëlal sécurité rek nga xam am cër Touba sécurité gi xaadim yore loo ci waaw yal na ko lu ne ndax ku baax la sama grand la sama lépp la mun nañu kaf mun nañu ree wax dëgg ndax jubileem est-ce que am ñoo ñaar di yóbbu na ma ci benn projet ci benn femme bu jóge France yëkkati ku ne ñaar fukki junni faynu ah. ci janvier bi ñu ba jox moo ko Matar ba ba du ñëpp la ministre des sports Matar ba moom moo ko moo xam ak ñoom dimbale na yar ñu ma dafa jël xaw benn bët la benn bët baaxul bi su ko jàppee na la ma xamal benn affaire gis la man Babacar man soxru man ñoom ñëpp laa yéene jàmm yàlla ne ne yàlla defal jàmm ñun ñëpp Sénégal yàlla na fi jàmm sax élection yi jëm nañ ci dugg bismillahi rahmaan génn ceeg alhamdulilahi rabil alamina géejëw waaw man non Babacar man soxoruma Babacar Babacar man yéenewuma kenn lu bon billaahi wallaahi wataalaahi man li ma bëgg gis na géejëway laa am mooy sama chef su ma dina am naa droit ñaanal géejëway ñaanal sama rak mooy sama chef is xam la man ñaanal naa ñëpp jàmm wala fief xawma islaam li ma la wax Babacar ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm ñu dëkk Géejawaay mbëri yu dëkk ñoom guy géeg ñoom am na yàlla may ndam ñi la dëgg de yàlla may ko la tey neex am nga droit laaj ka ma la neex waaye nga waaye nag kiy bëre mooy xam ku muy bëreel at prix ba muy jar comprendre Lac de Guiers yàlla ko yàlla may combat Sa Thiès yàlla ko yàlla may combat Alioune Seye 2 combat mu jógee yàlla na ko ndam li jik te ñoo ngi félicité Zos ndax euh, lu ne dégg na wax naa ko. Zos day Zos est-ce que ko sax yow. non non non non non sama rakk loon bëreel am naa période droit. dégg wax ci cadre sport nekku ci. cadre sport li ma wax. ay def la lii yooyu tamit bokk ci sport. non non waxin la waxin la xam nga benn affaire moo am Babacar. Babacar ma xamal la benn affaire man damay kaf Zos sama xarit la am naa droit sànni ko xeer. ne ko Dakar du saf ñaari yoon comprendre nga loolu lépp cadre sport la fo kaf la ree su jeexee jeex na ku baax la champion la def na fi jaloore bu ne def na fi jaloore bu ne te lii nag du dara na ñëwaat ngem waat dugaat ci làmb ji entraîné ndaanaan la ku lu fat def ni yaa ko mag de te yaa ngi bëri ba tey kan man non maguma sos non la 1980 ah. wàññi yokkoo wàññi woo 180 la man weer suma jugement def ma kii Babacar yàlla na yàlla président Mamour Kagne sama xarit ba ci borom mbuur géej moo moom mbuur ñu si ne naan ñoom mbuur président Mamour Kagne moo moom mbuur maa ko wax maa tey du nuyu sunu waaju Youssou Ndoye kenn du moom international parce que teer bu mag kenn ah? sa waaja. Modou Lo <laughs> gëj naa ko gis lépp boobu nag. bàyyi li ngeen ah, def leen ma jaxasee ak Ama Balde Ama sama rakk la sama xarit la wuy ma dama ne Youssou Ndoye ah maa ngi nuyu petit petit goro Youssou Ndoye sama transfert boobu bu mag bi sama. Mamy Ndoye waaw Serigne Mamy Ndoye kooku sama transfert waxuma ak yow déglul lii moo tax dama le premier janvier ah, ah, ah, ah noppil. waaw soo waxee du ma la yóbbu janvier de démb laa la yóbbu nga andi daal cent ko de soo waxee janvier am na mbaa doful xam na noppi na daw na wuy ma xam nga la wax petit sama transfert bi goro Youssou Ndoye maa ngi koy gërëm di ko sant waaw ñoo ngi koy gërëm ndax àdduna nii la àdduna amul solo di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp di sant ñëpp yàlla na jàmm yàgg Sénégal waaye lu neex daal yàqu na. ay le premier janvier. le premier janvier ay le premier janvier fii. ñoo ko moom. yéen a ko moom. Guédiawaye ñoo ko moom. Mbour dañuy bañ. waaye Mbour Mbour daal Mbour daal may la xoole Mbour. bu dox Mbour nee Pologne. Pologne nga Pologne Pologne Pologne. coupe d'Afrique coupe du monde nag. coupe d'Afrique bi ak coupe du monde maa Xaadim Njaay. ah dem. fi bàyyi Matar ba moom da koy yaatal. Matar ko yàlla defal bi nga ñëwee ci làmb ba léegi tubaarikàlla masàlla làmb ca kaw ca kanam lépp rafet Matar Ba ministre ma sax waaye ta Mambo Diaw bisam bi eh, tubaarikàlla waroon naa àgg ay Mambo Diaw eh, ay Mambo naa ko Mambo Diaw yóbbante na ma ci yow nee ah. ko tuddee drapeau Kolda ah, boobu ñoom maag yow ñooy ànd boo bëggee boo boo bëggee vol nga war a jël wala vol wala man avion laay <laughs>